que lii la ñuy sàkku parce que jàpp nañ ne réew kenn mënu ko liggéey ci sans la paix kenn mënu ko defar sans la paix donc li ñu def nii bokk ndey bokk baay boo xoolee tous les leaders a ngi fi ñëpp a ngi fi ñu jaxasoo ànd dox def li ñu def yëpp lii moo lay wan ne lu dul jàmm rek du dëgg. sànq ba ñuy def ci marche bi yaa ngi gis leader politique yi nga xamante ni ñoo war a jongante nekk ay opposants àndandoo téye benn bâche bâche bi ñu téye ñu ngi def randonnée de la paix cela veut dire que ñun jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw leader yi ñoom amuñu problème ñoom ñëpp ñu ngi ànd benn bâche di joxe benn message que ni jàmm lañ bëgg donc ñun jeunes yi nañ fexe ba jàmm boobu noonu aussi ñu am ko suñu biir message may lancé jeunes yëpp mooy aussi tamit nañ fexe ba élection yi di ñëw bu ñu kenn monté bu ñu kenn jaxase ba ñuy rayante suñu biir wala may dóor sama moroomu jeune. am solo la Tëngéej weesu yi mu daan nekkee. yéen ñëpp xam nga ne Tëngéej moom politique am da daan metti xeex yi bari xuloo bee xeex bi te da daan tàmbali avant ba même après waaye garantie bi ñu mën a joxe rek mooy tey lii mouvement spontané la ay waa Tëngéej même ñii def politique ñu ko deful ñu ko musul xalaat ñoo ne kon dañuy dajaloo moment yi mu daan am xuloo ak sànnante ay wax yu bon ñu def ko léegi waxante ay wax yu baax ndax Tëngéej ñun ñëpp ñoo ko bokk. doxu jàmm ñëpp ci war a bokk man pour man sax mbooloo mi waroon na tax tey Tëngéej yëpp a waroon jóg. ndax xam nga élection locale bu ñu ko waxee mooy euh, maanaam dañuy nat nit ñi fan la ñuy tolloo ak maanaam ñi nga xamante ne ñoom lañ bëgg tey ñu jiite leen donc pour man loolu xuloo waru ci am wax yu gaw wax yu kawee sax waru ci am parce que pour man programme bi maanaam bu ñu wax xuloo xeex ci programme bi la war a nekk même programme yi aussi bu ñu koy wax nañu ànd ak yar nañu ànd ak dal parce que je pense que comme ñun ñëpp Tëngéej moo ñu tax a jóg ak lu ko jëmale kanam wax ji mën na bañ a gudd euh, d'abord damay euh, jaale

culture de violence bi nga xamné ne mu ngi am ci Sénégal euh lu doy war la mais lolu war nañ ci taxaw taxaway bi moy gis nañ né fu ñu marche violence lay déboucher suñ né làmb violence lay déboucher suñ né football violence bu donc c'est un problème de la société lolu nak ñëpp war nañ ci mëna taxaw bay ci sen war ba nga xamné ne ne euh, lolu war na nek suñu gannaaw.